أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله الله أكبر
أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بسم أكبر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر.
الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله الله أكبر أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم السلام عليكم
bokk yi ku nekk xam ne ne fa maam Maodo Malick radiyallahu ta'ala anhu tegoon tànkam Seydi Aboubacar si Malick radiyallahu ta'ala anhu tegoon fa tànkam El Hadj Mansour si Malick tegoon fa tànkam fa la fas yéene teg tànkam te fa la ko teg moo tax ma ne soldat bu engagé gannaaw ba mu engagé ci service su boroomam ak fu mu mën a toll ak nu mu mën a mel mu nga ci jaamu boroomam moo tax nga dégg nu mu jàngi waaye nag gannaaw nag julli gi ñu jàll nag ci xutba bi
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان من لم نجد إلى معرفة كنه سبيلا بل جعل لنا سبيل الع... سبيل العرفان العجز والحيران أحمده وأوحده وأقدسه وأمجده والصلاة والسلام على سيد الحاضر والباد أيها الناس بادروا بإخراج زكاة فطركم فطر- فطركم المطهرة لصيامكم فادفعوها للفقراء إخوانكم واغنوهم عن الجولان وفي تأخير القادر عن اليوم عن صيام وهي واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمهور وقيل ثبت فرضها قبله عليه الصلاة والسلام على المشهور ولا تسقط بمدي زمنها عن الموسر وتسقط عن من مضى وهو فيه مؤثر الحمد لله رافع المسموكات وداخي المبسوطات الذي من علينا بما لا يحصى من النعم سبحانه ذو الجود والكرم وهو الذي ابتلى الاغنياء فليشكرون وحقوقه يؤدون كما ابتلى الفقراء هل يصبرون وفضله يرجون وهو ظاهر بمعنى وهو ظاهر بمعنى الرحيم على الفقراء حيث رحمهم بما اوصل اليهم على ايدي خلقه من اكرمه فلفضله ومن اهانه فلعدله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد والوعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقوا انفسكم واهلكم نارا حرها شديد
assalaamu alaykum mbooloo mi yéen ñëpp alxaajar bi mi ngi leen di nuyu bu baax mi leen di jaaray ci dës bi yéen ñëpp bu baax ngeen daal bi gàttaay bi ne ngeen baal ko gàttaay xëñ na moo neex yàlla ne ndaxte nii mu ko defee nii xëy na moo neex yàlla yàlla ñu neex li neex yàlla nag yàlla la nu neex lépp lu ko neex yàlla ñu neex lépp lu neex yàlla yàlla la nu neex te mu bañ di gisal te mu bañ nag di ngis tël wala ndégg tal wala ndégg tël wala wut saw taggu doomu aadama wala nga ci wut benn taggu doomu aadama ndax lu mu ci doon yaa ngi jëm ci béréb boo xam ne yow rek yaa moom ndax kat du ma ci doon yaa ngi jëm ci béréb boo xam ne bii yow rek kat te yaa moom rek
kon nag mais kon nag yal nañu yàlla dimbale ñu leeral suñu diggante ak moom yàlla ñu yàlla dimbali ñu leeral suñu diggante ak moom xutba bi dañ ko gàttal mais xutba bii mu jàng daf ko gàttal ñu résumé ko rek mais ñu résumé ko rek daf ko mu mu mu résumé ko rek koor la ci wax ne ne mbirum koor la wax ko xutba bi ak mujj ak ak ak muurum koor ak muurul koor ak ndax jëkk na am na jëkk sallallahu alayhi wa sallam wala yonent see ko farataal ndax yi am na jëf sallallahu alayhi wa sallam wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko farataal ci boppam ak muuru muuru koor nan lay mel nan lay toll ak muurul koor nan lay koor
ñu wax ne mais ñu wax ni Anas jële na ci Buxaari solo na jële ci imaamul Buxaari ne ana solo na jële ci imaamu Bukhari ne bés bii mu ni bés bii li ci sallallahu alayhi wa sallam daan jëkk a def li ci sallallahu alayhi wa sallam daan jëkk a def daf ci lekk daf ci daan lekk ay tàndarma daf ci daan fee daf ci daan lekk ay doomu tàndara daanañu digle it génne ma zakatul fitri lu tolloog ñaari fan ba ci ñett jëkk bés bi dana dégg ñu itam génn ak kay muurul koor lu tolloo jëkk fa wala ñaari fan la ci bésu tey suba jëkk julli imam malik ne ne imam Malik nag nee na abdullah ibnu abbas ne Abdullah ibn Abbas xibrul ummati ne mi nga xam ne mooy fooreel xeet wax na ne ne Abdullah wax na ni abdullahi mooma ne Abdullah mooma ne daana ya- yónnee muurum koor ca ka nga xam ne fa lañ ko daan ndaje lu jëkk ñaari fan wala ñetti fan ne Abdullah mooma ne daan na leen ne muurul kooram te fañ ko daan daje dëkk ñaari fan dëkk julli wala ñetti fan ñu ne mooru muuru koor nag saa lay nekk ñu ne muurul koor nag sa alay nekk ci bépp jullit ci bépp julli moo la war moo la war wala koo xam ne kii yaa ko dun yaa koy dundal wala koo xam ne kii yaa koy dundal dundal yow la war dund boo xam ne dafa war dund boo xam ne kat dafa war wala nga di ko dundal ngir bokk wala nga di ko dundal ngir bokk wala dencante wala nga di ko dundal ngir denc mu di sa jabaru baay ne ñu mel ci jabar baal ba ci sa wujju ndey ba ca sa wujju ndey ba ca ka koy liggéeyal ku koy liggéeyal waaye jaamu jaam waaye jaamu jaam kenn du ko génneel kenn zakat ku génneel asaka mu bàjj bàjj kenn du ko kenn génneel ku zakat génneel asaka ca borom xam-xam te borom xam-xam
yi ñu ne yi ne wax Sa- nañu ni saa daal la ca wér saad al Bachir moo di muddu sayidil ibad sangu jaam sangu jaam yi sangu jaam yépp sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yi gëstu nee borom xam bi gëstu dem nañu ba fekk ne dem nañu ba fekk ni sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ci muuru kooram si muru kooram dafa daan nekk mil al kaffayni dafa daan nekk ñaar tënku ci tënk ñaari loxo al mabsutatay mutawassitatayni nee yoo xam ne yii dafay digg doomu la mabsu la maqbudatayni wala mabsutatayni mais loxo yoo xam ne yii du ko tàllal lool du ko bancit lool am na fukki yëf ya ñu wax ne ca lañ koy génne mais am na nag ci tiif yoo xam ne ci lañ wax ne ci lañ génn muur wax nañu ne mboq ca la bokk nee nañu mbokk ca la bokk nee nañu lors ca la bokk lool si ca la bokk mën nañ ci ca génn luy xeetu ceeb ak dugub ca la bokk luy xeetu ceeb ak xeetu dugub ca la bokk mën nañ ko ci génn ba ci fromage mën nañ ko génn ci pharmacie ñu koy dund ba ci yàpp mën nañ ko génn ci yàpp ba ci soow mën nañ ko génn ci soow waaye dañ koy peser waaye nag dañ koy peese ñu ne lu suur nit rek ñu ni lu suur nit rek doy na doy
lu suur nit rek doy na nee nañu boo génnee lu suur nit doy ñee na ñu ca génne ga nag nee nañu la ca génde nga na fekk muy sa desutu loo xam ni moo doon sa dund yi ak sa njaboot na fekk mu bokk li nga xam ne mooy service su dund mu la nga dundee ca weeru koor yàgg si nga bokk doonte la ragal nga lor ca gannaaw génne ka doonte ragal nga ne li ci def te soo ko génnee du li ci def jeex doonte ragal ko it te koy génne moo di Seydil Hadj Mbax ne walaw xaafa dararam min baadi doonte nga ragal nga gan lor gannaaw ko ko gën ni doonte ragal nga ni soo ko génnee li ci dund bi lor dana la dab ndax dana jeexit da Waaw.
faw nga génne ko ñu ne ndax muurum koor ñu ni waaw muurum koor ku amul pexeem ku amul pexeem ñu ne koo xam ne kii wéy na te mënuloo dara wàcc na la mais koo xam ne kii nag muurum koor bés bi wéy na te it mënoo dara amoo pexe moo ko defee kon génn ko wàcc na la waaye la tasqutu bi mudiyi zamaniha anil muusir koo xam ne ki mën nga su waxtu wa passé da nga koy génne rek ah koo xam ne su ne mën nga nag soo am paase yi da koy génn ndax muurum koor yi dañ koy aj diggante asamaan ak suuf ndax ne koor dañ koy aj ci diggante asamaan ak suuf dara du ko fa jële dara du ko fa jëlee loolu nga génne sa muurum koor du nga génn sa muurum koor yàlla nañ ci yàlla dimbale yàlla na ci yàlla moo la dimbali mu ne mais mu ni
koo xam ne kii amul kattan koo xam ne kii nag amul katt yoon may na ko mu lekk ndegam yaakaar na fay yoon may na ko mu lekk lu mu génnoon muurum koor ndegam yaakaar na lu mu ko fayee wala mu xamal ka koy lebam mi ka koy lebal mbiram wala boog mu xamal ka koy lebal mbiram ci na mu ko mën a fayee ñu ne aji tukki nag ñu ni waaw ku tukki nag mu ne waa këram mën nañ ko ko génneel ci dénkaani wala ñu baaxoon ko ko di ko defal ñu ni aji tukki rek moom waa këram mën ko ko génneel ci këram ci mu baaxoo woon ñu ñu ñu di ko ko génneel wala Oui.
dénkaane su ma tukkee kat na nga ma génneel muurum koor moom it mën na leen mën na leen ko génneel fa mu nekk mais aji tukki bi mën na génneel waa këram muurul koor fa mu nekk tukki bi waaye ci kër gi suñ ko ko génneel waaye nag ci kër suñ ko dee génneel dañuy xam fa mu nekk la mu fay dunde dañuy xam ne aji tukki ji fa mu nekk la nga koy dund suñ ko xamul suñ ko xamul ñu nattale fii li ñuy dunde te loola gën ko kawe ñu nekkale fii li ñuy dund te loolu gën ko kawe la su loolu mënule am nag loolu mënul am génneel ko boppam mais kon mu génneel ko boppam Mooy la war.
te tukki ba mooy la war mooy la war néewoon naa leen ci njëlbéen El Hadj Abdou Aziz Sy Malick ba mu agsee rek dafa dal di julli ba mu jullee it xutba na léegi nag mu ngi nuyu ak ñi nga xam ne ñoo fa ñëw ci ay kilifa yoo xam ne ñoo fa teewal président de la république ak ñoo xam ne ay kuréelam lañu jóge ci dëkk ak dëkk ak feneen ñëw ngir teewe si julli korité ci Tiwaawan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu loolu sëñ bi dañu leen di nuyu yéen ñëpp bu baax ñu ngi nuyu bu baax Papa El Hadj Malick Ba mais ñu ngi nuyu nag lool doon Papa El Hadji Malick Ba di nuyu Ibrahima Diagne di nuyu Ibrahima Diagne Bérébi di nuyu député bi di nuyu député maire bi di nuyu sous préfet di nuyu sous-préfet bi di nuyu adjoint di nuyu acteur bi di nuyu commissaire bi di nuyu commissaire di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi nekkal góor gi te toogal leen fi bi di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi nekkal nguur gi te toogal leen di ziyaara kilifa yi nga xam ne fi ñoo fi nekk di njabootu Seydi El Hadji Malick radiallahu anhu mais di ziare kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk di njabootu Seydil Hadji Malick radiallahu taala an mag ak ndaw góor ak jigéen mu dee ziare ñoom ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen di ziyaara doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci liñ ñu fi bàyyi mais mi ngi ziare mboolem doon soxna yi nga xam ne ñoo leen di jàppale ci li ñu fi bàyyi ci wàllu bu mu doon ci wàllu bu mu doon ñu ngi nuyu it ki nga xam ni mooy kilifa réew mi di président bi di ko jaarale ci El Hadj Malick Ba mais mi ngi nii ki nga xam ne mooy kilifa réew mi di président de la république jaare ci Lamine Hadji Malick Ba mu jotal ko nuyoo ak mboolem ku bokk ci membre gouvernement bi ak Abdoul Aziz Ndaw mi ngi nuyu mboole ku bokk ci membre gouvernement bi yëpp ak Abdoul Aziz Ndaw suñu Di- responsable di nuyu kilifa diine ji ci réew mi ñëpp di nuyu mboole kilifa yi diine yi nekk ci réew mi yëpp di yeesal suñu kóllëre ak ñoom ak suñu bokk ci bés bu tedd bi ci place bu tedd bi mais mi ngi yeesal koleereem ak ñoom ak bokkam ak ñoom ak wóloreem ak ñoom ci bés bii ci place bu tedd bi ci bés bu tedd bi màgg bi la di ñaan it yàlla la mu defoon ca diggante mag ña ba ñu nekk benn dëppoo yàlla na ko yàlla def suñu ñu ngi diggante ñaan yàlla la yàlla def ci diggante mag ñi ñu dëpp ñoom ñëpp nekk benn yàlla ci àll digganteem ak ñoom ñëpp kilifa diine yi yëpp danaa waxtaan tuuti nag waaye sama bopp laa ci jiital mais dina waxtaan nag tuuti waaye ne waxtaan wi nag boppam la ci jiital
xam naa li nekk ci man ci njubari sax nekkul ci yéen waaye fa li faaili lmunkari nahyu ani lmunkar li yàlla yajtamia alayhi ismaani mais wax la ne sax li nekk ci moom nekkul ci moom nee ci moom ci jub waaye nag nekk ci lépp loo xam ne nii dañu ko tere warul tee nga tere lii ba soo ko deful am nga ñaari am nga kat yi nekk ci biir te am ñu leen di sàcc ñu defee ne ñu ngi ci biir l'islam fekk génne nañ ko bu yàgg am na ñu leen di sàcc nag ñu defee nañu ci biir islam fekk génne nañu ñagu islam bu yàgg
ak ñoo xam ne dañuy dugg ci réew mi bëgg a dindi pas-pas yi fi nekkoon ah ñoo xam ne ñu dañuy dugg dugg ci réew mi nag bëgg a dindi pas pas yi nekkoon ci jullit yi ci réew mi te su duggee alquran dal di woyof ci ñun te loolu nag bu duggee nag ci fan alxuraan daal di woyof ci nun sunna woyof ci ñun sunna seenante bi daal di woyof ci nun sallallahu alayhi wa sallam woyof ci ñun salaa sallam woyof ci nun xam-xam woyof ci ñun xam-xam woyof ci nun ku ñuy tudde njiitu diine dootu rëy ci yow am na ñoo xam ne loo leen dugal si ci réew mi am na ñoo xam ne ñoo loolu mooy seen pas-pas moom lay duggal ci réew mi ñu ci def ci biir réew ñii ñu ngi mbuggoog ak njullit di ko wax ñee ñu ngi mbubb am njullit di ko wax fekk loolu la ñuy doxal fekk loolu la ñuy doxal ak ñu doonul ci lislaam dara ak ñoo xam ne ñu doon ci lislaam dara bëgg a dindi liimaan doon ci suñu xol bëgg a dindi liimaan bu nekk suñuy xol ci daraja yu ñu joxe ci daraja yi ñuy joxe wala cër yu ñu wala joxe seen yu ñuy joxe wala alal yu ñu wala joxe alal yu ñuy joxe waaye maa ngi xamal ñëpp waaye daal ala jàpp ne ñi nga xamal ñëpp ci place bii ci place bii mu toog toog ci wetu néew mu yi toog ci wetu néew yi ci sëkk te yàllaa ma gën a jege yàlla gën a jigee boppam maa ngi laabiire ñu ngi laa biir képp koo xam ne kii doomu julli nga bu dëkk ci réew mi képp koo xam ne ci doomu julli nga bu dëkk ci réew mi te nga nekkoon formation te nga nekkoon farmaso génn ci génn ci soo ko deful soo ko deful daa dajeeg da yàlla nga daje yàlla ëllëg waaye du dëgg waaye ne farmaso du dëgg du jullit li tax ma ne du dëgg nee li tax mu ne du dëgg formation ba la nga cee dugg farmaso ba na cee dugg
da ngay summi ko ba nda- mel ne sa ndey juróom da ngay summiku set rek mel na sa mel na sa ndey jure woon ni ki jaan di summi ko ci xobu euh, euh, yaramu daawam li ci jaan di summiku xubbikoo ci yaramu daal woomu amee woon mooy lan loolu mooy lan amatuma ndey da nga naan amatuma ndey amatuma baay amatuma baay gëmatuma kenn amatuma kenn li loos bi wax laa li gëm loos bi wax laa gëm li société bi wax laa gëm bi wax laa gëm seen ndigal lay déglu nga lay déglu di sol sa xaftaan sa xaftaan dëkk ci allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum fekk nekkuloo ci dara doo jullit newuloo ci dara
gannaaw bi ne gannaaw loolu réew mi du mën a jub réew mi du mën a jub du ñu mën a am li ñu bëgg ci yàlla du nu mën a am li nu bëgg ci yàlla ndax ñun ñëpp ànduñu ci yàlla dañuy ragalante gannaaw ndax mais ñun ñëpp ànd nañ ci yàlla dañuy ragale ci gannaaw gannaaw waaye ànd noonu ngir yàlla kenn ku sa sa nekk kenn ku ci nekk say nit a ngi lay yëkkati jëme kaw kenn ku nekk say li nga lay yëkkati jëme kaw di got ci ki ci sa wet di gott ci sewet nga di ci nga kontaan di ci kontaan te di wax ne nitu yàlla yoo nga xam ne nit yàlla la jaadu su dëgg jaaduwul
li ci des ne benn bi mooy wàllu gouvernement bi mooy wàllu gouvernement bi ku ñu seet ku ñu seet ba doy loola ba doy lool teg la ci place teg la ci place nga mat ko sëkk nga mat ko sëkk war nañ la fa bàyyi war nañ la fa bàyyi seet sa liggéey seet sa liggéey ndegam jubal nga ndegam jubal nga fa lillahi alhamdu walilahi alhamdu soo jubalee soo jubalul soo jubalul ñu jéggal la ñu jéggal la seetaat seetaat ba xam ba xam da nga ma da nga mat da nga rafetal da nga rafetalaat wala déet wala déet waaye teg nit ci place waaye teg nit ci place mu yilif nit mu yilif nit kooka di dugg ak di génn koo koy dugg ak a génn di dugg ak di génn dugg ak di génn bañ na nañ ko wàcc bari nañ ko wàcc su dee ci ministère bari yi ci ministère yi su dee ci gouverneur bari yi ci gouverneur yi loolu jaadu loolu jaaduwul
tabax dañ koy tabax pour dëkk ca ne ab tabax dañ koy tabax ngir dëkk ci Sénégal mooy suñum taax Sénégal mooy sunum taax waaye su ñii dee tabax bëccëg bu ni waaye daal bu ñuy dee tabax bëccëg su guddee su guddee ñu ñi ci des dem daaneel daaneel daaneel kañ la dëkk di am dëkk du am këpp nu dëkk du am